Yeah.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 ساد لي رب البرية بدن ساد لي رب البرية بدن أصدق ابن من خلوني بدلا فديتني فديتني فديتني ربي بسر وعلم سعسعتني إذا كبر ولم رفعت ما سار لي وما بدا مني منورا بفادل العطن باركت لي باركت لي في من جلاك ومسكن وصيري وباتني فيك سكن ملكتني ما درت لي يا سسمن فكنت لي في الانتهاء بلمن سقيتني سقيتني معا بغيبك غدر سافت جملة قلاتي بغرر سيت لي بما كفاني يميا يا من لفلكي بفيدك سان كسبت لي سر النفاس بكل من إسمة نبعتني مثل الفراد وسنن وصعمي وأملاك عصمت منن نبعتني أصابتني يا ناصر يا من له مني تامها لكسن هربت نداء بمربي لان لغير دوري يعدوي لم ين ترجعني ترجعني li ñu dajale fii tey mooy màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa yaakaar naa bu ñu dégloo sëriñ sii dégg nañ ci lu bare bari mu wax ci ci gàmmu ak njariñ ñi am ak ni ko Sëriñ Tuubaa fonke woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daraja yi nga xam ne moom la wéetoo suñu boroom jagleel ko ko moom dong dégg nañ ko waaye mbokk yi gàmm muy daje giñ daje ni di màggal am na ñoo xam ne daje gi ñu daje fii di màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom day ni ñu ko gisee ñun ñi toog ci jataay bi di ko def ak ñi nekk feneen di ko def ci mën na wax ci àdduna bépp ci àdduna bépp mën ngaa wax ne foo dem ñu ngi tey ci guddi gi ñu ngay màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne sax ci weeru yépp lañ koy màggal am na ñoo xam ne nag gisewuñ ko noonu waaye loolu tàmbaleewul tey te yaakaar naa it du fi yam ci loolu nag ci lan bëggoon a ñëw waxtaan ci ci lan moo waral wuute gis-gis yooyu liñ ci jublu nag xëy na ñi nekk ci jataay bi ñépp moom liñ jàpp mooy màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant ci xéewal gi nga xam ne moom la ko suñu boroom jagleen xeetam wi sant ci yàlla loolu yaakaar naa ñi nekk ci jataay bi kenn amu ci sikki sàkka ci ci ni loolu lu war la waaye fàttalente day baax te kenn ku nekk la nga jàppoon xëy na mën naa mën naa gën a dëgër ci yow ba mu wër na la ne yow mii li nga nekk lu wër la amut benn sikki sàkka nekku ci moom màggal bisu yonent bi nag boo demee ci xeet wu nekk ñoom danañ danañ am nuñ koy wooyee ñenn ñi ak feet lañ koy tuddee waaye tur yi amut solo tur yi amut solo jëmmi defin wi moo am solo jëmmi defin wi moo am solo ak yéene ji tax ñu di ko def moo am solo waaye jëmmi tur yi amut amut solo ñii danañ ko tuddee ak feet yii tudde ko yeneen tur bu dee fii Sénégal nag liñ ko gën a miine mooy gàmmu gàmmu lañ koy woowee gàmmu nag da am na am na am na taarix am na am na histoire am na am na histoire ci niñ koy daje ni ñuy daj wala boog ci defin wi ñu koy defee am na histoire bu ñu xoolee moom gàmmu boroom xam-xam yi dañoo wax ne ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci maanaam siècle siècle bi nga xam ne téeméeri at yi nga xam ne ci la yonent bi dund ak téeméeri at yi ci topp ba ci ñetteelu téeméeri at bi dañuy wax ne nii ñu koy defee amul woon buñ ñëwee ci gën a leeral sax ñi nga xam ne dañoo gis ne gàmmu kenn waru koo def ba am yeneen yu ñu wax ne moo tax kenn wërta gàmmu dana gën a leer waaye liñ bëgg a xam le rek mooy histoire gàmmu gàmmu dañuy wax ne ñetti siècle maanaam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee siècle bi nga xam ne ci leen ko yónnee woon ak siècle bi ci topp ba ci troisième siècle bi dañuy wax ne gàmmu amu ci woon gàmmu def defin wii ñu koy def di dajaloo di tudd yàlla ak di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni defin woowu euh, amul woon dama wax ne ci ñeenteelu siècle bi ci la tàmbali ci lañ commencé dajaloo di ko def wuute nañ ci nag kan moo ko jëkk a def wala ñan ñoo ko jëkk a def waaye daal ci liñ mën a jàpp mooy wax nañ ne benn buur buñ daan wax al mazhar maanaam moom buur la woon bu nekkoon dëkk bu ñuy wax Irbil ci Irak la fa la nekk wax nañ ni moom moo jëkk dajale aw nit di màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa am na ñeneen ñu wax it ñi ni wax fatimiyun wala alhabidiyun ñoom ñoo ko jëkk taxawal ñoom ñoo ko jëkk a e, ko jëlee ci niñ ko xamee moom passé wut mooy nit ñi dajaloo mbooloo moo xam ne ay jullit lañ ngir màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ci bëgg giñ ko yónni passé loolu léegi nag bala ñoo gën a sori ci waxtaan wi bëggoon nañoo leeral ñi nga xam ne dañuy wax ne gàmmukat ñoom dañ cee jël seen position te ñooñu ay boroom xam-xam ay boroom xam-xam lañ te xam nañ ni boroom xam-xam saa yu amee position rek ña nekk ca agronome day moom position ba mu jël day daal di jeexital ci ñoom bokk na ci seen tegtaloo biñ tegtaloo ba wax ne gàmm kenn waru koo def mooy liñ njëkk a wax mooy gàmmu moom ñëwul ci alquran ñëwul ci sunna ñëwul ci alquran ñëwul ci sunna bokk na ci ñoom liñ wax ba wax ni daal diine ji moom bi fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee la matoon kenn waru cee yokk dara bokk nañ ci liñ tegtaloo mooy aaya quraaniya bi suñu borom di wax naan al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum al islaama diina wax ne wax ne tey kat diine ji mat na te xéewal yi ma doon wàcce ci yéen it mat na gërëm gërëmal naa leen islaam aaya bi wax nañ ne mu ngi wàccoon yawmu arafa yawmu arafa la aaya bi wàccoon aaye boobu ci lañ sukkandikoo wax ne diine ji kan mat na te ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggalut woon bis bu ñu ganee àdduna saxaaba yi defuñu ko woon teyit gisuñu ko ci alquran gisuñu ko ci sunna léegi kon gàmm kenn waru koo def kenn waru koo def ci loolu ci leen wax ne kon gàmmu li muy doon kon mooy biddaa biddaa biddaa nag buñ ko waxee mooy loo xam ne luñ sos la luñ sos la loo xam ne amul cosaan ci diine loo xam ne amul cosaan ci diine ni ko borom xam-xam yi di xamle mooy ihdaasu amrin fi diini laa asla lahu fi shara mooy nga sos mbir ci diine mbir moo xam ne cosaanam boo ko doon wër ci sharia mënoo koo gis loolu mooy bidaa ñoom kat dañoo wax ne kon gàmm ginnaaw gisuñu ko ci alxuraan gisuñu ko ci sunna kon bidaa la ñoom nag seen wax jooju waxuñu ko noonu rek bayal ko biñ ko waxee ba noppi dañoo sukkandikoo ci ay texte dañoo sukkandikoo ci ay tex texte yi ñu sukkandikoo yi ci gën a dëgër nag ci maanaam alxuraan la ak sunna léegi doon naa texte boo xam ne ci alxuraan la moom alxuraan la muy aaya bi ma jàngoon léegi ñoom bokk na ci texte yi nga xam ne ci leen sukkandiku beneen bi ab xadis la xadis bi yonent bi di wax naan kullu muhdasatin bidaa wa kullu bidaatin dalaala maanaam lépp loo xam ne dañ kaa sos bidaa la te bépp bidaa ak réer la te wa kullu dalaalatin fi naar te réer goo gis kat boroom réer ga bu réer googu bu di ñun ci moom sa sawara la ko jëme ñoom bokk na ci texte yi nga xam ne moom lañ sukkandikoo waaye ñi nga xam ne dañoo gis ne gàmmukat ñoom am na ñoo xam ne sax ñii dañ koo jàppi sunna ñenn ñe ne déedéet sax gàmm sax du sunna waaye sax léegi lu war la ñoom tamit bàyyiwuñu leen noonu ñoom it indi nañ seeni lay yu yu leer yu mën a dugg ci bopp bokk na ci kullu muhdasatin bid'a gii nii nga xam ne bokk na ci imaam yu bari bu ñuy xutba dañ koy faral di dañ koy faral di tàmbalee wax ji wax ju wér la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mais texte boo gis dafa am contexte dafa am contexte bu mu ko waxee woon te it jëmmi maanaam kullu muhdasatin bid'a maanaam bid'a fii nekkut ma jubluwun ci almaana yi maanaam maanaam sariya jub jubluwun ci almaana lugawi lañ ci lañ ci lañ ci jublu maanaam almaana lugawi lañ ci jublu mooy biddaa ci boppam buñ ko waxee mooy loo xam ne rek dañ koo sos loolu mooy biddaa loolu rek lañ ci jublu lépp lu ñu sos rek comme ni mu ko tàmbalee kullu muhdasatin biddaa lépp lu luñ sos biddaa la loolu lañ jublu waaye jubluwuñ ci maanaam yoo xam ne buñ ko waxee ci sharia nga xam ne lii buñ nee la bidaa la kenn wërta topp bidaa jubluwuñ ci jubluwuñ ci maanaam moomu jubluwuñ ko ci ñoom nag maanaam moomu lañ bëgg a jël wàcce ko ci kaw xadis bi ñoom maanaam moomu lañ bëgg a jël wàcce ko boroom xam-xam yi nga xam dañoo gis ne gàmmu la war a ne leen déedéet déedéet jubluwuñ ci loolu te li koy firndeel mooy ginnaaw yonent bi sallallahu bari na mbir yoo xam ne yonent bi defu ko woon saxaaba bay defuñu ko woon ñu def ko am na ci mbir yoo xam ne yonent bi defu ko waaye saxaaba bay ñëw nañu def ko ma joxe ci misaal comme lu mel ne alquran suñu alquran jii ñu yore léegi nga xam ne léegi kaamil bari na comme neex nga ubbi sab kaamil dem jàng jamono yonent bi amul woon yonent bi bi mu fiy jógee alquran ci ay dar lañ ko bindoon ak ci ay yax ci lañ ko bindoon biñ demee ba ci jamonoy Seydina Abu Bakr moom moo dajale alquran te loolu li ko waraloon mooy bi ginnaaw bi fi yonent bi jógee maanaam xurubu ridda ñi nga xam ne ñu bari ci naafiq yi dañoo tàmbalee bi di wax ne ñoom ginnaaw yonent bi jóge na fi ñoom dootuñu joxe asaka ak yu baree bari ñu commencé ko bañ Seydina Abu Bakar na déedéet ñii bu ñu leen bàyyee noonu diine ji kon day mujj kon day deltu gannaaw daal di taxaw di jàmmaarloo ak ñoom ñenn ci saxaaba yi ñu bare bari commencé cee faatu te saxaaba yi ñoom ñoom alquran ji ñoo ko yoroon amu ci kenn sax ci ñoom koo xam ne amoon nga booba maanaam alquran ju mat sëkk nga xam ne kaamil boo xam ne yow am nga ko sa kër booba ñoom ci ñoom kenn amu ci woon lenn kay moo amoon mooy ñoo xam ne bari woon na ci ñoom ñu mokkaloon alquran ci seen dënn ñooñu ko mokkaloon nag dañoo commencé faatu ci xare yi léegi nag ñu dem Seydina bu Bakr wax ko na ko lii kat bu ñu ko seetaanee dana mujj dem ba kon alxuraan ji dana mujj lu baree bari manqué ji ndax ñu baree bari ci ñi mokkaloon alxuraan ñooy commencé faatu ci la jël initiative wut ñoo xam ne ñu mokkaloon alxuraan lañ daal leen di wax ne léegi da ngeen di xool ñi nga xam ne bindoon nañ ayaat yi alxuraan li ñu jotoon a bind lépp ngeen dajale ngeen dajale ko te ab aaya bu nekk bala ngeen koo bind ñu ñu bari ci ñu ko mokkal wala lu néew néew ñaar ñu ko mokkal nañ nañ ko tari ñu xool ko maanaam génne aaya boo xam ne kenn bindoon na ko ñu xool ko liñ mokkal mu dëppoog liñ bind bu ko defee ñu soog koo bind noonu lañ ko def dajale alxuraan ba mat loolu yonent bi bàyyi ko fi woon kon loolu benn la boo xam ne ginnaaw yonent bi ginnaaw yonent bi lañ ko sos ñaareel ba ba léegi ci loolu it ginnaaw euh, Seydina Abu Bakr bi mu fi jógee ba Seydina Omar jógee fi ba Seydina Ousmane ñëw moom it jamono yooyu ginnaaw bi ñu dajalee kaamil bale ay wuute amoon na ci nañ lañ ja nañ nan lañ war a jànge alquran ci araab yi ñii di ko jànge seenu jànginu bopp nga xam ne ñoom seenu giir am na baati arab yoo xam ne kenn ku nekk nañ na nga koy waxee dem ba wute am ci Seydina Usmaan biñ ko ko waxee mu ne lii moom da ciy sàkk pexe demoon nañ sax ba ñenn jullit ñi daanan daanan ci xaw a jàppante kii na ko yow ni nga jàngee du noonu kii na ko man ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa ko dégge te ñoom ñépp li ñuy wax dëgg la waaye ñoom arab yi dafa am baat yoo xam ne kenn ku nekk na koy jànge ci la Seydina Usmaan léegi jël Zayd ibn Saabit mi nga xam ne bi ñuy jëkk dajale alquran moom la seyd Seydina Abu Bakr jëloon ak ñeneen boole ko ñeneen ñoom it ñoo saytuwaat loolo jël wenn njàngin woo xam ne moom lañuy jàngee bind ko ci bind bind ko ci ab mushaf ba tey looloo loo looloo waral ñuy wax mushafu Usmaan mushafu Usmaan ba léegi looloo waral ñu di ko wax bañ nañ ko ba mbindin wan bindi woon kaamilu Usmaan boobu mushaf booba mushaf booba képp koo xam ne indi nga weneen njàngeen wuuteeg njàngeen woowa kenn du ko nangu te ñépp xam na ni Seydina Usmaan yónni wuñ ko ci ci nit ñi alxuraan wàcci ko ci moom waaye lii ginnaaw bi moom moom moo ko taxaw moom moo ko saytu saxaaba yi ànd ci ak moom ñu saytu loolu kon beneen a ngi noonu boo xam ne it ci ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam luñ la ci diine lu sos la ci diine bokk na ci ñiy weddi gàmm it seen lay yi ñu sukkandikoo xadis boo xam ne soxna Aïcha moo ko nett li radiyallahu anha di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa day wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa képp ku jëf jëf goo xam ne bokkuñu bokkut ci sunu mbir mii loola noonu dañ koy delloo am na xadis bi ñëwee na ci beneen baat muy wax ne man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd ku sos ci sunu mbir mi loo xam ne bokku ci loolu dañ loolu dañ koy delloo waaye li borom li ñuy wax naa ab talaaxu bil alfaas maanaam jël baat yi di ko di di ko fawee nu mu la neexee loolu noonu dajee feeñ ndax xadis bi leer la man ahdasa fii amrina maa laysa minhu la wax bu maa laysa minhu lu ci bokkut bu yonente bi man ahdasa fii fii amrina fa huwa radd boo waxoon loolu doo ngi yem ci daal ku sotti sunu mbir mi kat dañ koy delloo bu boobaa ñoom seen lay yu mën a dëgër waaye yonente bi daa wax ne maa laysa minhu léegi nag in kaana minhu bu fekkee lii ci la bokk nag te màggal guddig yonente bi sant ci yàlla ki nga xam ne comme niñ koy waxee mooy ngën gi mbindeef moom lañu wàcc ci moom alquran ak yu baree bari ko suñ borom jagleel nga xam ne bu du woon ak moom nit ñi duñ bindeeku kooku noonu ñu di ko màggal nga ne lii kat bokkut ci mbir mi loolu nag bokkut ci mbir mi léegi lool léegi lan mooy bokk ci mbir mi kon lan mooy bokk ci mbir mi ñetteel ba bokk na ci seen lay ba léegi yi yi yi tax ñu ne gàmm kenn waru koo def mooy dañoo wax ne gàmmkat buñ koy def ab dafa am yoo xam ne moo fay am muy jaxasoo góor ak jigéen ak fecc ak ak yu deme noonu waaye lay woowu dëgërul dëgërul ndax gàmmu nekkul ne fi ñu koy defe fépp noonu lay demee ndax bu ñu xoolee suñ jataay bi rek loolu loolu mucc na ci kon da ngay gis ne lay woow moom day daa day daa di dàq kon beneen bi mooy li ñu wax ne yonent bi defu ko woon yonent bi defu ko woon loolu ñëwoon naa ci waaye li fi waaye li ma ciy gën a leer rek ñoom loolu noonu mooy seen lay wi gën dëgër mooy seen lay wi gën a dëgër maanaam seen mboolem lay yëpp boo ko boolee yonent bi defu ko woon saxaaba yi defuñ ko woon boobu lay moo ci gën a dëgër waaye boroom xam-xam yi teewut jàkkaarloo nañu ñoom ni leen li ngeen wax fu ngeen ko teg ndax yonent bi ak ñàkk defam dara loolu noonu teg telewut mu nekk lu xaraam wala mu nekk loo xam ni kenn kenn waru koo def te bu ñu delloo ci règle yi nga xam ne moom la ulamaawul usul teg ñoom maanaam bu ñu delloo ci règle yooyu noonu yonent bi bàyyi dara nekkut aw lay woo xam ne dañ cey sukkandiku ngir di bàyyi dara loolu tax dañuy wax naan at tarku laysa bi xujja yonent bi bàyyi dara nekkul aw lay comme ni ma ko leerale woon léegi ci jamoon quraan fi hadi abi ak fi fi hadi usman dajale gi ñuy dajaloon alquran ci jamonoy seydina abu bakr ak jamonoy seydina usman loolu yonent bi defu ko woon te teewul ñoom biñ ñëwee def nañ ko ñi nga xam ne ba seen lay yi ñoom lay yu baree baree baree bari lañ indi waaye indi naa lay yi nga xam ne moo ci gën a dëgër nga xam ne ñoom ñoom ci lañu taxaw te yaakaar naa ku yàgg a bàyyi xel kuy dégg kuy nga gàmm lay yi ma fi tudd léegi yooyu yooyu yooyu ngay dégg mu mu yooyu ngay dégg mu di ko wax yooyu ngay dégg mu di ko wax waaye lay benn ci dëgërul comme li ma mujj wax suñu borom li muy wax wa ma aataakum rasulu fa xusuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu la wax waxut ne wa ma aataakum rasulu fa xusuuhu wa ma tarakahu fatrukuhu suñu borom waxut loolu néew ne yonent bi lu mu leen andil nangeen ko jël waaye lu mu bàyyi na ko bàyyi waxut loolu te yonent bi waxoon na ne bu ma leen digaleen bu ma leen digalee dara na ngeen def la ngeen ca man na ngeen def la ngeen ca man la wax bu ma leen teree dara ngeen bàyyi lépp ida amartukum bi shay'in faf'alu mastata'tum wa ida eh, nahaytukum an shay'in fatrukuhu su ma leen teree dara na ngeen ko bàyyi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax léegi ñi nga xam ne ñoo gis ne gàmmu lu dagan la baa sunna la baa lu ñu war a def la boroom xam-xam yi dañ cee séddale ko ñoom bokk na ci seeni lay ñoom dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmande la joo xam ne suñu boroom moo ko wàcce ci mbindeef yi te bu ñu delloo ci alquran dañuy gis suñu boroom di wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa ghayrun mimma yajma'un wax ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa waxal ne nañuy bëgg ci ngëneelul yàlla ak yërmandeem boroom xam-xam nag niñ ko tekkee dañuy wax ne alfadlu mooy alxilmu ngëneelul yàlla mooy xam-xam arrahma mooy yonent bi sallallahu alayhi wa wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin suñu boroom daa wax yonente bi na ko yónni la lu dul nga nekk yërmaane ñeel ñeel mbindeef yi lu dul teg li ma jëkkoon a wax sànq di li ma jëkkoon a wax sànq ne fadlullahi mooy al mu war rahmatu mooy muhammad sallallahu alayhi wa waxi sayidna abdullah ibnu abbas la radiyallahu anhu nekk tarjumaanul quran nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon wax ne allahumma faqihu fi diini wa halli wa hallimhu at-ta'wil ñaan ñaanal ko na booba ndaw la woon yonente bi sal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko na ko suñ boroom yàlla na nga ko déggloo diine te xamal ko ta'wil moo tax ta'wil alquran bokk na ci saxaaba yi ñi ko gënoon man mooy ibnu abbas mooy ibnu abbas nga xam ne dem na ba magi saxaaba yi nga xam ne ay way juram lañ woon sax ñu demee ne naa Omar ñoom dañ daan dellu ci moom dañ daan dellu ci ñoom yenn yenn saa yi bu leen yenn uh, aayaat yi déggin dañuy laaj ne ibnu abbas moom nan la ko déggee ngir ñaanu ñaan ñaan gi yonent bi ñaan gi ko yonent bi ñaanaloon uh, wàcc gu mu wàccoon ci kawam moo waraloon loolu buñ demee ci ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa feef dell ci luy dëggal ne gàmmukat luñ sopp la mbaalu war la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam daf daan woor bisu altine ndax dañ ko laaj ci woor gi mu doon woor bisu altine ñu ne ko yonent ñu laaj ko ne ko woor gi ngay woor bisu altine moom lan moo ko waral xadis boobu xataada wala boog abi xataada radiallahu moo ko nettali daan ne su ila xan siyaami isnayni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo laaj woor bisu altine bi mu daa woor lu ko waral mu ne fa qaala fiihi wulidtu wa fiihi unzila mu ne ci bis boobu laa gane àdduna te bis boobu ci lañ wàcc ci man alquran loolu kay lan lay tegtale mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bu mu gënee àdduna ku ko fonkoon la te daa ko màggal loolu mën nañ ko cee mën nañ ko cee jëlee boroom xam-xam yi it comme ni ma ko waxee léegi dañoo séddalikoo ne gàmmu ñii ni sunna la ñenn ñene lu war la ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne gàmmu lu dagan la ñenn ñi ne bidaa bu rafet la même bu dee biddaa sax biddaa bu rafet la dañoo bañ a gàmm dañ koy diingat te it képp koo xam ne yaa ngi leen di déglu doo ko def ñoom dañoo wax ne biddaa bu rafet amut maanaam li ñuy wax bidaa xasana ak bi ak bidaa sayyi'a amul ñoom dañoo wax ne bidaa moom fu mu mën di jógee moom bid'a sayyi'a la waaye bid'a hasana amul waaye loolu it eh, ay texte dàq na ko am na hadis boo xam ne jarir ibnu abdillah al bajali radiallahu anhu moo ko nekk li yonent bi di wax ne man sanna fi l islaami sunnatan hasana fa lahu ajruha wa ajru man amila baadahu hadis bu gudd la yonent bi ne ku yoonal aw yoon ci lislaam maanaam ku def mbir ci lislaam yonent bi sunna xasana la jëfandikoo sunna su rafet ñoom nag dañ koy dàq waaye yonent bi moom sunna su rafet la wax nee na képp ku la ca roy nee na yow da ngay am sa yoolu bopp ba noppi képp ku la maanaam euh, teewul da nga jëlewaat beneen yool bu bokkut ak yool bi nga xam ne moom nga moom nga amee ci soos gi nga ko soos hmm. léegi nag buñ gisee ne ñi nga xam ne dañuy màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jëf yi ñuy def dara génn ci alquran génn ci sunna ndax dañuy jàng alquran baa ñuy zikr zikr mën na cee dugg mooy jàng gi ñuy jàng xasaayid euh, yi ak asalaatu ala nabi asalaatu ala nabi wa taslimi alayhi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu it dara génn ci kon mën nañoo gis ne loolu noonu sunna xasana la sunna xasana ndax boroom xam-xam yi dañuy wax ne alxibratu bi xumuumi lafzi laa bi xusuusi sabab maanaam li ñu war a jàpp bu dara ñëwee duñ jàpp ne tey jii bu buñ waxee dara la taxoon ñu wax ko rek duñ fa taxaw daal di yem ndax bu doon loolu alquran li ñuy wax kadik li tubaab yi di wax kadik kon alquran alquran ba léegi nii kon kenn dootu ko mën a jafe ndax bari na texte yoo xam ne wala aayaat yoo xam ne buñ ko déggee nañ ko doon déggee ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko déggee déggin wow rek kon lu baree bari day day daal di day daal di sooxe waaye luñ gën a dem xam-xam di gën a dox ñu bare lu bare bari ñu dugg gën a xam dañuy wax ne washamtu tajri li mustaqarrilaha xam ne jant bi day daw dem ba am fu mu taxaw léegi xam-xam wane na wane na loolu mais saxaaba yi ñoom ñoo ñoom weneen déggin lañ ci amoon ndax ñoom ni mu leere jamono ji na na jant bi boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo jàng loolu ba xam ko xam ne jant bi heure sàngam fii lay taxaw ñoom niñ ko mën a expliquer mu mu leer ak ni mu leere ci ñoom saxaaba yi ñoom leer leerul woon ci ñoom ndax eggoon ñoom saxaaba yi ci boppam ak liñ doon doon doon doon ay arab am na baat yoo xam ne ci arab ci euh, arab yi yu ni ci lañ ko daan mën a xamee ñi dëkk ci àll bi am na baat yoo xam ne ñoom dañ leen daa dégg ñu wax ko ñu mën ah ñu ne ah ndekete kon baat baat sàngam wala aaya sàngam lii lay tekki baat sàngam wala aaya sàngam lii lay teg kon alxibratu bi humumi lafzi laa bi xusuusi sabab li tax ma wax ko mooy jëmmi xadis bi man sanna fil islaami sunnatan hasana dañoo wax ne loolu kat daa am lu taxoon yonent bi wax ko léegi rek ñoom ñu bëgg faa taxaw te fekk demeewul noonu alxibratu bi humumi lafzi laa bi xusuusi sabab ñoom saxaaba yi yéen def ci ay jëf yoo xam ne day li tax may insiste ci ci ci ci ci point boobu ñoom li ñu wax ni li ma waxoon ne mooy seen lay wi gën a dëgër mooy dañoo wax ne yonent bi defut woon lii rek kenn waru koo def bokk na ci yooyu mooy julli gi ñuy bu weeru koor jotee dajale gi ñuy daja daja maanaam ni ñuy dajaloo ci jumaa yi wala ci kër yi di julli maanaam salaatu tarawih ni ñu koy defee loolu jamono Seydina Omar la am Seydina Omar jamonoom lañ dajale nit ñi ci jumaa ji ñuy julli bi léegi nag bi nit ñi dajaloon julli gis ko maanaam loolu jekk jim jekk ay jullit yu dajaloo ci jenn jumaa jiital kenn mu di leen jiite ñoom ñëpp ñu topp seen ginnaaw lenn rek la ca teg ni'matil bidaatu hadihi Seydina Omar de néewut lii du lii du bidaa de waaye dani lii de bidaa bu baax la bidaa bu baax la mooy la ma waxoon ca ginnaaw bidaa day nekk day ñëw nekk nekk bidaa bu baax al imaamu suyuti moom it ci boroom xam-xami islaam yi nga xam ne ci boroom xam-xam mag yi la bokk ëpp ci lum taalif sëriñ bi sax daf koy faral di tudd ci ay mbindam moom it dafa gis ne gàmmu ci bidaayu rafet yi la bokk loo tax mu ne huwa min al bida huwa min al bidahi al xasanati allati yusaabu alayha saaxibuha lima fihi min taadimin qadri nabii sal allahu alayhi wa sallam wa idhaari alfaraxi wal istifshaari bi mawlidihi sharif moom nee na gàmm ci bidaa yu rafet yi la bokk moom bidaa la ko jàppe waaye loolu li ma jàpp te li ëpp ci borom xam-xam yi sax loolu lañ dëppoo ak donte man bokkuma ci borom xam-xam yi li ñu wax mooy li am solo mooy d'accord nañ ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa ak gane ga àddunaam kat warees na koo màggal waaye nii lañ koy màggalee loolu moo ci gën a am solo waaye kee keene bidaa bu rafet la walla keene euh, sunna la wala waajib la te loolu li ko indi mooy dañoo jël euh, li ñuy wax euh, al ahkam ash-shar'iyya al xamsa maanaam attey juróom yi ci lislaam moom lañ jël lekk daal daa daal di ko ciy wàcce ndax ci ab jullit lu mu mën a doon juróomi atte yooyu ci mbir mu mën a doon moom la jël moom la war a jël wàcce ko ca bu ko defee moom dana xam ba xam lii waajib la lu war la wala muharram la lu ñu araamal la wala makruh la man duub la wala baax la boo xoolee juróom la juróom yooyu ñoom borom xam-xam yi ci te loolu problème mu déggin la rek ñoom dañ cee wute ñii dañ ne lu dagan la gàmm daal lu dagan la comme ni nga def ko ñenn ñu ne déedéet yëmut ci dagan sax waaye sax dafa mujj nekk lu war waajib la ñii ne sunna la waaye li ci am solo mooy mooy defin wi defin wi rek ci am solo ginnaaw buñ ci d'accord ginnaaw buñ ci d'accordee ginnaaw buñ ci d'accordee ba noppi bokk na ci lay yi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo gis ni gàmmu warul ñu di ci sukkandiku wala ci ki ñi gën di sukkandiku mooy boroom xam-xam bu ñuy wax ibnu taymiya mu faatu 728 hijriya bi gàddaay gi amee juróom-ñatt téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróom-ñett nga xam ni moom ñu baree bari ñiy sukkandiku ñu ci ëpp ci ay waxam lañuy sukkandiku waaye moom li wax ci téeram bu ñuy wax iqtidaaw siraatil mustaqim moom waxut ni gàmmu bi daala walla kenn waru ko def waaye li mu wax moom mooy gàmm ku ko def ku ko def ab yool man nga ko caa jële moom loolu la wax léegi nag euh, moom Ibnu Taymiya wax dëgg yàlla man en tant que ab jàngkat ngeen baal ma ci baat bi li ma ci gis ak ñu bare bari ci jàngkat yi mooy mooy dañ mooy moom ci boppam dañ koo tuumaal te loolu bari na sëriñ bu mag bi rek da ngay dégg moom it ñu di ko waxal bi bu set ñu di ko waxal loo xam ne waxu ko moom Ibnu Taymiya noonu la demee lu ci baree bari dañ ko koy waxal te waxu ko ak doon tey xawoon naa taral nag xawoon naa taral waaye lu ci baree bari dañ ko koy tuumaal moom bu ñu xoolee ci gàmm ñu baree bari ñi koy sukkandiku ñii sukkandiku ci moom ji jël ay waxam maanaam lam ca wax dëgg-dëgg duñ ko wax moom ci téeram bi li mu wax mooy fa taadimul mawlidi wattiqaasuhu maw mawsiman qad yafxaluhu baadu nnaasi wa yakun lahu fii ajrun adim li husni maqsadihi wa tax wa tahdimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daf ne màggal guddig yonent bi maanaam nit ñi mën nañ koo def bu ñu ko defee ne mën nañ cee amee yool ngir jubluwaay bañ ca am ngir jubluwaay bu rafet biñ ci am moom moom moom loolu la wax te ñu bare ci boroom xam-xam it gis nañ ne ànd nañ ci daganal nañ gàmmu gis ni gàmmu lu dagan la mbaa luñ sopp la mbaa luñ war la bokk nag ñoom al alxaafis ibnu hajar alxasqalaani moom it ci boroom xam-xami jullit yu yu magi la ci boroom xam-xami la bokk mu ngi faatu 852 hijriya ci la faatu al imam suyuti tuddoon naa ko léegi mi ngi faatu 911 hijriya moom it ak euh, al imam ibnu kasir al imam al ñoom ñëpp yaakaar naa rawatina fii ci Sénégal al imaam Qurtubi ak euh, al imaam Ibnu Kasir ñu leewal